professeur. di jégalu suñu sëriñ la ab taalibe nag du yee sëriñ Fatick di ko indi fii mais professeur ñu ngi ci jégalu baax baax di rafetlu également taxawaay bi. di la nuyu di la dalal. voilà wax dëgg yàlla moom it kooku euh, disponible la saa yu ko invité ci plateau yi mu ñëw ngir leeral. Mm-hmm. li di wax nag tey dafa am solo Souleymane junj na ko muy wàllu suuf Sénégal. coow li bari na trop li ko waral nag moom moo tax kon ñu woo fi professeur Abdoulaye Dieye mhm. di jàngale kon ca une faculté des sciences juridiques et politiques ñu koy fac droit mhm. ci gàttal mhm. fële ca université Anta Diop bu Dakar ak ci yeneen université ci Afrique ak ci àdduna bi ndax xam-xamam moo ko may euh, muy wàllu constitution xam nañ ko ci mais wàllu foncier aussi walu suuf xam-xamam daf cee màcc bokkoon nag ci commission bi nga xamante ni commission nationale de réforme foncière bi nga xamante ni Souleymane ko 2014 commencé woon nañ seen liggéey maître Doudou Ndoye njëkk koo jiite laata professeur

Je leen félicité si émission bi format bu bi nga xam ni gis parce que c'est important aussi parfois nga changer format émission mbiru souf bi de façon globale man damay jaxlé toujours du fekké conflit amna ñuy mettre l'accent sur conflit bob. xam pourquoi ma wax parce que dama gëm ni conflit foncier tant que li fi am changé wul bés bu nek dans am conflit foncier bés bu nek di ngeen dégg conflit foncier. lan moo fi nekk xam nga ñu suuf si indépendance lay wax ak léegi dafa wàññeeku donc suuf si dafa wàññeeku ndax érosion bi salinisation bi yooyu yëpp a ngi fi. Mhm. donc suuf si dafa wàññeeku nit ñi di yokk Sénégal soo xoolee nas si dellu si léegi 1964 bi nga xam si lañ def régime domaine national à peu près on était à peu près 3 millions tey gis nga liñ toll. donc nit ñaa ngi yokku suuf si di wàññeeku lan moo mën tax problème bañ am surtout que ñëpp xam ni suuf lu gaaw pour maye xaalis la parfois même day nekk en chemin sans cause lan moo mën tax coow bañ am mooy mu am ay loi yu leer am ay autorité yu responsable di appliquer loi yooyu ak procédure yooyu mm-hmm. loolu nag mooy problème bi Sénégal parce que comme ni ma waxoon léegi

1976 aussi ak tay li changé bare na. te ñaar yooyu moy li ëmb suuf. parce que li nañu war xam moy tay Sénégal suuf bo jël. Sénégal bo jël fu mënti nek ñett yi règle la. soit suufu domaine national la. soit suufu domaine de l'État la. domaine privé soit titre foncier la bo xamni man ak yow mën nañ ko am ñett yooyu rek. xam nga lolu moy amul benen suuf. su ma nee amul beneen suuf mooy lan mooy xam nga suuf maam déggoo ko si ñett yi suuf maam amatul mais léegi nag du fekkee dafa am hiatus entre li ma wax nii ak ñi kon ne di wax suuf maam conflit yi su ne day am parce que ni ñoo kon ne di wax suma suuf maam suñu suuf

comme technique technique de la hache technique du feu du sabot yooyu yëpp noonu la de def ba ni suuf si yëpp maa ko moom loolu mooy loolu moo continuer 1964 1958 la commencé ça. parce que nous avons 50 mais 50 mais qui qui tàmbali mbir bi Mamadou Diallo moo créé première commission ni ni li lii mënul wéy suñu amee indépendance nous continuer de wax suufu mhm. il faut nous réfléchir mettre en place maintenant ben système bon ramener d'ailleurs ramener xam def sans wax orientation mhm. première commission 1958 ñu dem ba 1962. moom si pas moo un problème avec ak Léopold Sédar Senghor. crise mais déjà 1962 amoon nañu projet Si xam bi ko Cour suprême Cour suprême xool que, wax le projet bi c'est pas conforme à la constitution. parce que Cour suprême dafa considéré que ni souffle moom une propriété collective amne, alors que domaine national ni ñu ko Cour suprême bi nga que le moom lu génn si bàyyi bi Léopold Senghor la changé constitution 1963 def ci ben phrase bo xamné ne nit ñi gis ñu ko sax motax biñu bi projet bi cour suprême cour suprême légui baxna baax na changé propriété collective def que droit de propriété automatiquement mu nek lo xamné légui effectivement mën nañu ñu ko nek 1964 ñu voté loi sur le domaine national ñu wax ni ci loi bi ñu joxe ay délai parce que xam nga so ñëwoon rek nangu yëpp ni état bi xam mo day nek day nek leneen nationalisation étatisation te loolu da ngay fay

donc 95 nek du domaine national. lycée de 5 yoyu cent am as tuut bo xamni ne état bi moo xam moom parce que su ma nee domaine national bo état bi donc ngeen xamni domaine national état bi moomu ko. sino duma di 5 ak ay touti touti touti yo xam ne titre foncier la. ku ko moom. kenn ku ko moom daan si domaine national. bu ko état bi moom ni ñu ko bindé du ni ken moomu ko. ñëpp ko bokk. loolu mooy non kenn moomu ko ak ñëpp ko bokk du benn. <laughs> c'est ça kenn loolu mooy spécificité domaine national. Mm-hmm. duy ne suuf si kenn moomu ko. Mm-hmm. état bi moomu ko. communes yi moomuñu ko. Mm-hmm. nit ñi fa nekk di bay moomuñu ko. kenn moomu ko noonu lañ ko bindee xam nga loolu. aussi affaire kii la waaw waaye nation bi ko moom et cetera. kenn moomu ko mais du ñu wax ni ñi nekk di bay 1964 ñu ko bind si loi bi kenn du nangu suuf si si ñoom. tant ñoo ngi continuer di ko mettre en valeur xam nga su ñu waxee loolu loolu mooy ñi nga xam ne pour ñoom am na ñoo xam ne naan dara changé wul parce que ñoo ngi fi ba léegi ñoo ngi béy ba léegi te kenn wax leen dara te kenn wax leen dara mm. wax nañ leen ni tant yéen a ngi fi di di di mettre en valeur kenn du ko nangu day nekk déjà benn déclic si ñoom ñu ni kon nag dara changé wul fekk yooyu li changé bare na mm-hmm. li changé bare na mooy lan mooy avant 1964 suuf si

momulo ko nga dama kay jaay soko bu ngey jaay da kay jaay jaay nebatu wala mun lo ko jaay dem ci état bi ñu ñu daganal jaay bi lolu moy spécificité domaine national wuté nak domaine de l'état bi nga xamné ko ko état moko mom moy domaine public domaine privé ak ciol fi amon tan yépp ci affaire littoral hmm. lek bu ñëwé ci ndéngalel fofu la bëgg ñu delsi wat parce que dañ né soufu maam amul

est-ce que mon na délibération dem bàyyi dem titre foncier waaw c'est la loi moo prévoir problème bi kañ mooy est-ce que délibération ba jàddu délibération bi nga on est commune communauté rurale Sindia moo ko joxoon moo ko délibéré woon suñuy question loolu ngay question pourquoi parce que wax naa la sànq le domaine national du ngi parce que soo déggee communauté rurale rek xamal suuf domaine national pour des ko déggee rek ay communauté rurale tout ça rek xamal généralement domaine national xam nga du ngi suuf si kenn moomu ko mais nous ni ñan ñoo que gérer nous ni communauté rurale parce que domaine national aussi dafa xaw compliqué ñeent le mais li si les li ëpp coow mooy zone des terroirs mooy nekk si àll bi yi ñuy bayee dëkk dëkkuwaay ni lii communes communauté rurale yi démb commune, commune ñoo que administrer duñ koy joxe di ko nangu wax nga ko mais pour joxe bi duñ ko jox n'importe qui loi bi dañ ko moy il faut nga dëkk sa dëkk ba ñu jox la ko. xam il faut nga dëkk sa dëkk ba pour ñu mëna la ko jox. té lool 72 lañ ko ubbil noonu mais xam nga de 1964 72 lañ doon wax il faut nga yéwo sa dëkk ba ñu mën di la jox suuf yéwo sa dëkk parce que ñu bindoon ni soo fa jógee sax mëna nga la suuf si. 72 lañ ko ubbi wax ni léegi duñ ni wax ni il faut nga dëkk fa mais il faut au moins nga bokk fa. appartenance à la collectivité. donc sooy poser question mooy est-ce que affectation bu njëkk ba.

lu ñu def lu ñu tuddee immatriculation mooy bind suuf si léegi si turu état bi suñ ko bindee si turu état bi mooy communauté rurale léegi def nañ ko nii très bien euh, professeur lan mooy rôle waa domaine ci gestion foncière. foncier euh, domaine presque si si ñoo ngi si foncier lépp même su fekkee nit ñi du ñuy def parfois erreur si loolu boobu mhm. parce que dooni dooni domaine da ngay wax état bi mhm même du fait que rurale communautés, ñoom ñooy jaay ñom ñom ñoy joxé di mais délibération yoyu représentant de l'État d'accord approuvé donc c'est le domaine national parce que duñu ne l'état état bi moomul de soucis. mais l'État détient les terres du domaine national. Ce que li nga wax noonu maanaam euh, impôt et domaine. un rôle surtout le domaine de l'État. L'État li nga xam parce que l'État état bi moo ko xam domaine de l'état, état trop par rapport au domaine national. mais l'État, état moom kii euh, impôt domaine ñoom ñoo koy gérer. leneen li titre foncier aussi chaque fois mu am transaction lu mu mënti doon.